jëf mbokk yi comme ni ñu ko defee saa su ne topp nañu ko defal fii Ida Mouride gis nañu la maire Amar Ndao moom ñu ngi leen di joxe ceeb jël de cinq tonnes ci rek ko def ñu ko def mu la maire Amar Ndao jël kenn kenn ci xam ne ñoo fi nekk di sëñ daal yi xam ne ñoo war a jaar mbir mi euh, ñu war lañ ko laaj ndax plus xam ne jël jëlee xam ne ñoom ñoo xam ne le conseil xam ne xam nañ ko seetlu ko suñu suñu commune kan la suñu oote di man daal ñu noonu nekk ci biir euh, askan bi parce que woowuñ sax ñu bëri dañoo bëgg a mi rek teg ci loxo ki xam ne mooy nekk mooy nekk bi mu ngi noonu moo ko loxo ci biir rek euh, waxtaan ak ñëpp ñu fi ñaar ñu fi nekk pour kii bi préfet bu mu fi tim am na Moustapha Ba moo ko teewee te nga wootoon fii ci biir euh, Ida xam ñu moment bi ñu ngi ci moment wu di xeex maladie boobu ñuy wax coronavirus tey nga wooteel ñu gis lu nekk si ginnaaw ci kanam euh, le sous-préfet de Ida Mouride Amdi Moustapha Ba ak conseil ak ñi xam ne ñoo war a jël li xam ne war nga ko joxe est-ce que mu ngi si ñëwaat rek wax ñu mbir mi nan nan nan tëddee. waaw ah, jërëjëf euh, Matar ñu ngi nuyu di bi kilifa diine fi nekk hmm. wax bésu tey bii. fii ci conseil municipal bu Ida Mouride euh, dañ fi dajewoon tey pour ci li xew ci réew mi te suñ borom indi ko muy corona gi euh, ñu am xalaat bu ñu xalaatoon bu yàgg ci liy yëngu ci turu conseil municipal bi Euh, ci fan yi gannaaw yi la jëndoon fii lu demee ni paani raxsu ak i malaat séddale woon ci jumaa yi ak lenn ci ay daara mateewul waaye jubaa yi yëpp amoon nen euh, bu loolu weesoo suñu président di président Macky Sall recevoir suñu président AMS muy Aliou Sall ak Adama juuf bi ñu génnee ñu jox ñu benn fa ni président nee na collectivité locale yëpp nañ dugal seen loxo ci corona bi euh, commune bu ne bu ndaw na dugal un million bi ñu ko déggee yàlla dogal loolu bi muy ñëw ñu suñu région bi maire yëpp waxoon ne nan def maire bu ne deux cent mill muy trente deux maire ñu bonante ko muy quatre million nangam ñu war far bi loolu ñëwee ñu ne kon léegi nan ko teg suuf nan dajale un million bi ñu dajale un million ñu juróom-ñetti maire yi muy Mayacine Camara man mii di wax yow Mohamed Dieng Ousmane Kabo Lour Mburuk ak Gendé Paté ak maire Mak Yop ak Missira ak Sali ñun juróom-ñett yi ñu dajalee huit millions man leen ko joxoon bi ñu demee bañ ne bi indi arrêté trésor ne man compte coronavirus mën nañ fa engagé ñu ne comme lii dañ koo dajale woon nan ko jënd ab ceeb delloo ko ci askan loolu moo indi ceeb bi yàlla dogal Assane Diop itam ci trou conseil départemental gannaaw mooy président départemental moom it mu jëndoon ceeb maire bu ne mu jox la deux tonnes cinq cent pour ñu séddale ko ñu ne ñu jënd cinq tonnes mooy li fi nekk nii tey loolu mu doon xalaat bu rafet bi ñu dajalee xaay bi yónnee ko Mohamed Dieng mu jëndal ñu ko fa prix en gros mhm. transporté bi ci oto mu ñëw démb leen jot ceeb bi réceptionné ko tey ñu noon nan woo sëñ daara yi ndax lañ ci jublu mooy mhm. xalaat bi mooy sëñ daara bu ne lu mu néew ne am na fukki gune wala ñaar fukki gune mhm. ah suñu manoon na bu yettee la ci des bu ñu mosee génn dem feneen yalwaani comme na dañ ne nan téye daara yi ñu ne nan leen mosal loo xam ne lii tey li ñuy wax yokk njël xam ne ne mënuñ leen a jox njël waaye tey boo daa yetti ñeenti kilo ñu ne téye leen daara yi mën ngaa dolli beneen kilo ba xale yi mën a toog mën a mën a jàng moo tax tey ñu recensé ci commune bi ñu jox ñu juróom-benn fukki daara ak benn mhm. tey ñu fas yéene daara bu ne ñu jox ko saaku ceeb ndax daara yi ni ñu ëppante xam ne waaye daf ci am loo xam ne li bu ci duggee. Mhm. dafay xaw a doy waar. am na daar yoo xam ne yi nag xamal leen suñ bopp man xamal naa sama bopp ne daar yu mag la yooyu daara yooyu danaa leen jox ñaari saaku ceeb waaye bu ko mooyee daara yëpp benn bu ne daañu la jox saaku ceeb dimbale li ci des nga xam ne dañ koo bëgg a téye ndax comme état bi daf ñuy jàppale. Mhm. te xamaguñ ni muy ñëwee ñu téyegum lii su état bi ñëwee bañ xam li indi. ñu boolante li ñu am delluwaat ko ci askan bi loolu daal moo tax ñu dajaloo fi tey di sant nag président de la République xelaat bi nga xam ne lii bi mu dalee xelaat bi mu def boole ñëpp ndax ku xoolaantele xam ne bàyyiwut kenn te loolu kilifa li war a def def na ko te wolof ñaa mën a xuus ci këla jiite moo tax ñu nitam ñu fagaru taxaw fas yéene xeex lii ndax lii transfert compétence ci suuf lay tàmbalee jëm ci kaw kon su fekkee ne dañ ñoo jox baat baatu askan bi su lii xewee war nee na jéem lañ man ak lañ manut moo waral bi mu xewee ba léegi saa bu ne ñu ngi yëngatu ci turu commune bi ndax li may wax li ñuy def nii yëpp muy madaat bi contre coronavirus bi ak leneen lépp commune bi la ba ci ceeb bi cinq tonnes yi dama am na ku ma laaj ma li ci ëpp ji si commune bi la ak sama yëfi bopp. ok ci loolu yi ñëw sax est-ce que mën nañu xam ñaata nga dégager pour mën a def lu mel nii ci li nga njëkk di xam nañ ne am nga loo def ci force Covid mooy euh, bi kii bi Macky Sall taxawal ngeen versé million def ko comme maire mais am nga loo jënd gis nañ ne defoon nga ay baan ak madaar jàppale ko poste santé yi tey nga jëlaat lu mel nii est-ce que mën nañu xam ñaata nga pour def lu mel nii. waaw li ñu njëkkoon a développé. mooy sept cent cinquante mille. pour def ko ay maraat ak i paan. pour yi. ci poste yi. woo neen poste santé yi fii. post bu ñu yoonee neen la maraat ak paan. jàppale la euh, cinquante mille francs carburant pour nga mën a dem san sensibiliser. loolu leen njëkk def fii jëlaat suñu oto jël commission jumaa yi fi nekk yëpp jumaa bu ne ñu ne nañ fa yóbbu dara ak lenn ci sëñ daara yi su matee wuti itam ñu xam ne xa ak programme ne école yi. loolu yëpp bi ñu ko programme comme école yi dafa taxaw taxawagum ñu boole ci programme école yi ba bu ubbee école bu ne nañ fa yóbbu comme madame daxasookaay lépp ak compte bi un million leen ci verse cinq tonnes yi ñu jënd nii moo transport bi yëpp mu ngi nekk un million quatre cent soixante quinze lépp moom ah, borom dëkk yi ñoom it dajale woon neen fukki juróom te ñoom it dañuy dugal seen loxo ci compte bi bi ñuy waxtaanee ma ak sous-préfet mu ne ma comme borom dëkk yi xalaat boobu def neen ko fekk ngeen def xalaat bi fukki junne juróom jël nañ leen ko ceeb doole ko ci ceeb bi kon jaaro jaadu nañu wax li borom dëkk yi def jaadu nañu wax ko fii parce que nag ku def ku ko wax la bëgg kon ma xamal na ne li ñu fi dajale commune bi moo tax ñu def ko damay wax ne commune askan wi mooy commune ndax balaa ngaa nekk conseil municipal nit ñi ñoo wote pour nga dogal nekk conseil municipal dogal suñu borom. balaa ngaa nekk maire conseil yi ñoo wote pour nga nekk maire kon maanaam bu ñuy jëf ci turu askan wi leen jëfee. du turu maire du turu conseil turu baatu askan bi ci leen sukkandiku ba mën a jëf. ok ci askan boobu la ñuy ji daaneel rek gis nañ ne moment bi euh, mbir mi àgg ko suñu gox di ñaan yàlla yàlla bu mu fi agsi mais nag ku nekk da ngaa far fagaru yéen taxawaay ngeen jël ndax yi sensibilisation yi kii wala am nga benn message boo xam ne bu nga ko jàlle kilifa yi nekk yëpp yóbbaale ko xam ne mbir mi ñëpp ci war a taxaw jàppale sous préfet yi jàppale préfet jàppale personnel santé bi parce que daal xeex bi xeexu ñëpp la quoi yi ban message nga am pour ñooñu pour ñu mën ko yóbbaale tey jërëjëf loolu sawar naa cee wax la nga ne jàppale waaye damay wax ne ñu jàppale suñu bopp <laughs> ndax ñu yàlla bu baax bi ne kilifa aada yi ak docteur yi nga xam ne ñoom ñoom leen yaakaar ne ñoo mën a faj seen xalaat bi ñu xalaatee ne lii moo war a téye lii ndax loo xam ne amuti tànk tey dox te ñi koy transporté bu ñu leen téyee duutu mën a dem moo waral ñu indi ne nan téye nit ñi wàññi tànk yi ba wàññi doon dox te amuti tànk bu amul fu mu yéeg dem du dem bi yàlla dogalee loolu nag ah, su préfet yi waxtaan ci ak sëñ daara yi hmm. kilifa diine kilifa aada yi ñu jëlu santaat kilifa diine yi bu baax a baax ndax bi xabaar bi daanoo ñoom ñëpp delloo nañ seen bopp ci yàlla xam ne lii luñ la mos wax suñ la ko waxee am na xew xam nga fu ñu dee ba naan nan wàññi nan waa nan tëj jumaa nan def nii nan def na ne te wax dëgg yàlla am tey li ñu fi dajale mooy daara su daara amul jumaa du am suñ dee bay na nan ko tey ñàkk pexe tax waaye nag loo xam ne lii soo ko deful musiba jur te wolof njaay mu ne balaa nga ne naam ne fa balaa ngaa taxaw di xutba dangaa wér fan balaa ngaa jàng dangaa wér te loo mbër muy wër te xamul fu mu ne laqatu moo la ciy musal ak dogalam suñ borom ñu santaat yàlla na bu baax ci bi nga xamee ne ngir mi am na ba noppi suñ borom ni ko dogal dogal na ko ba noppi waaye mu ñu ci aaragum di ci musal kilifa yi nag ñi ngi ñaan guddi ak bëccëg benn ay dama wax ma ne ko gis nga kilifa yi mhm. jarul wax ñaan leen kilifa gune bu xëyee bu gontee mu ci ñaan mhm. nit nag du taxaw ci ndenn gi ne maa ngi ñaan waaye ñoom ñëpp ñi ngi wéetal seen bopp dellu ci yàlla te bu ñu dem buur rek feebar bi dem te fu ne yaakaar naa ne amul kenn ku waxul ne yàllaay buur mhm. ndax suñ borom nag yaakaar naa ne rek daf ñu doo fàttaliku ne mooy buur waaye fi ñu toll nii amul chrétien amul julit amul catholique ñëpp xam ne ne yàlla bu kon yaakaar naa ci ndimbalu suñu borom mën na ko fee jëlee. Hmm. ñi ñaan yàlla mu dem te bu am njeexit yàlla yóbbu ko mu dem a dem ni mu ko indee woon te bu am benn njeexit hmm. waaye ñi ngi nag suñu sous-préfet hmm. lu ñëw waxtaan nag ñoom war a waxtaan ak xam nga mag doo ñëw na ko baal nangam surtout kilifa diine. yi nga xam ne réew mi ni ñu baaxoo juma wasifa lu ne waaye lu ci ne waxtaan na ak ñoom ci njëkk ak teraanga ci waxtaan ak ñoom ba lépp ñu tëj ko te dara yënguwul ndax am na gox yoo xam ne dégg ñu naan ci seen tey kii yeneen nii imaam ba def leen ko dana lépp ñàkk waxtaan la kilifa dafa am nooy waxee moom mag dafa am nooy waxtaanee moom kon nag jéem na waxtaanee ñoom noonu te nañ war a waxtaane ba ñëpp nangu te dara xewul li wolof yaay di wax la dog bi mokk na te damoo yàq kenn tegul dégét kon daal loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di sant nag kilifa diine yi fi nekk yëpp hmm. wax di ci àddina bi laay wax ndax ñëpp xam ne na dogal na suñu borom a ñëw ànd neen ci te xam ne bu ko fi jëlee mu dem ko jërëjëf monsieur le maire di wax kàddu gu mu jóge gi di la gërëm rek di la sant je crois que message bi àgg na ci askan bi ci dañ ko jëfee lii rek mooy que ne euh, teewal sa askan euh, bu soxlaa nga ñëw ci bànneex ak na xartu lii rek bànneex la sax parce que tamit buñ ci jàppoo nekk benn rek dana ci am ndam te mm. ndam rek la ñuy ñaan te loolu la ñëpp di ñaan kon ñu ngi lay gërëm di la sant kàdd gu mujj gi rek. jërëjëf xanaa di gën a santaat conseil municipal bi rek. ndax liggéey bi dañu ko dénk askan wi dénk ñu ko. Mm-hmm. ñu di ci diisoo. Mm-hmm. di sant suñ conseil technique. ndax mm-hmm. conseil municipal. ñaar ñooy conseil technique. mooy secrétaire municipal. Hmm. ak sous préfet. ndax. Hmm. sous préfet bu ñu ne contrôleur de l' état. Hmm. maanaam dafa nekk leroog ñun di ñu xelal. suñuy diisoo moom lu jub loo xam ne yoon nangu na ko mu ne li yoon nangu na lu yoon nanguwul mu li yoon nangu ko secrétaire municipal itam soo déggee ñu ne secrétaire municipal mënoo leen bàyyi municipal rek mu dem ni waaye secrétaire municipal mooy conseil technique maire. kon ñu ngi leen sant bu baax. di sant nag conseil municipal bi nga xamee am nañ discipline bu toll ni su dëgg jotee wax jot taxawaay jot ñu ànd nekk benn wax dox ànd jëf loolu am solo la waaye su fekkoon ne bu dëgg jotee ñu def koy caaxaan bu caaxaan jotee ñu def caaxaan du ñu ànd du ñu jàppoo dara du dem te booy sooxe lay doon askan wi yëpp ñu te xam ne jiitu li ma waxoon démb rek du mbuumu rafet du xam-xam. du taar lu leneen suñ borom ci boppam mooy sàkk koo neex mu jiital ko heure bu ko neexee mu dindi kon loolu xam nañ ko bu baax a baax a baax yàlla mooy fal mooy folli kenn falu kenn folliwul suñ borom rek mooma te ku ko xam rek buñ la jiitalee war nga xam bu baax damay wax ne suñ borom ñàkk fayda hmm. saa bu la jiitalee ci kanam askan wi nga bëgg leen def mbaam bëgg leen def leneen mu tegg la teg fa keneen parce que jaamam yi kenn du leen foyee kenn du leen kàllakale kon loolu suñ koo xamee rek day xam ne dogal suñ borom daf laa jiital ci kanam jaam yi waaye nag taxul nga gën leen kon ñi ngi santaat yàlla bu baax di sant rajo yi ndax yéen itam lu am solo la ndax li ñuy bëgg a def nii coronavirus bii liñ ci santaane nañ ko respecté bañ a jaxasoo di raxasu ndox saabu ndax fu ngeen demee ba président de la République jël ndox di raxasu joxe ay exemple kilifa yi ngeen gis ñuy raxasu loolu yëpp te mosta am kon ñu loolu joxe exemple la na respecté liñ wax bañ a jaxasoo jaxasoo bu ëpp di di toppatoo li nga xam ne li moom la docteur santaane suñ ko defee yàlla mi yor mucc mën ñëw musal waaye nag yàlla de bu lay sàmm da nga koy léeg-léeg ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp wasalaam jërëjëf